dal leen jàmm ci yéenekaay yi fii ci Thiès 24 dañu koy doore ak élection législative 2024 yi jamono ji nakana candidat yi nekk di amal seen campagne nekk ca tappaandaw ga waral tension yi jóg neer yu tàndi si diggante ñaari coalition yi di sàmm sa kàddu ak Pastef waral yéenekaay bi la di xam li ne daal ministre de l'intérieur général Tine ma ngay artu bu baax di xam li ne bëggul benn yoon ay attaque ci caravane yi naam sax am na yu nu ci nemmee ko daal waaye daal na fa a ëpp loxo ça dégénère ndaxte bu sàmm sa kàddu ñoo buntu xatal militant wu xam li ne daal moom Barthélémy Dias warta baatar campagne ci biir réew mi warta tontu ko ni sàmm sa kàddu dina wéyal campagne ci biir Dakar te kenn du ko arrêté ci mim réew jëriñ bu ñu dénk wàllum biir réew mi jox na ay instruction ngir ñu fuyte cortège yi nga xamante ni ay suspect lañu Walf Quotidien ni daal Ndakaaru Njaay boo mayul sens mu tàng jërë ci ñaari coalition yi ndaxte mooy derrière virage bi nga xamante ni ñii di candidat yi fa seen campagne waral menace biir Sénégal gat sa gatsa bi dinañ ko dékalaat bu baax a baax sax Barthélémy Dias mel ni ku koy tontu ni daal ñoom waa Pastef violence rek lañ fi bëgg indi ndaxte xam nañ bu baax cohabitation mënta ñàkk ci biir réewu Sénégal ubbi les échos àdduna ci li ni mel xam le ni daal Sonko daal ma ngay déclarer la guerre Barthélémy Dias fas yéene dékalaat gat sa gatsa gi di xam ne ni bi mooy ñetti yoon ñu leen di attaqué te ba léegi gisuñu benn arrestation te yi ñuy xooqatal suñuy militant du ma ko nangul kenn même su dee président de la république la sax te nag ni ki tey ji dinaa def déclaration ci kanamu Barthélémy Dias te suy def def dul la kon ko digaale ak moom bu baax a baax la tribune ni moom Sonko daal ma ngay menacé Jean Baptiste Tine defiyee Diomaye dekkilaat gatsa gatsa gi xamlal population Sénégal état wu Sénégal dafa seetaanti li ni mel maa ko wax te jël naa samay responsabilité pour demee mbir Barthélémy Dias nee na itam kenn mënta arrêté campagne électorale yoor yoor moom ni Ousmane Sonko jamono jële daal ma nga jàppal mer bu rëy kii di Barthélémy Dias lu ma ko yàkkul rek dafa des yéene di biral ay kàddu moom Ousmane Sonko ni daal fukki at juróom yi nii Barthélémy Dias di fi jiy violence ci espace politique bi nit ko amul benn éducation waral muy atu nii dafa jeexa te dootuñu nangu ñuy attaque suñuy benn militant gatsa a dëgmal yéenekaay bi la xuus yeneen laaj mu ne daal moom Ousmane Sonko dafa mel ni dafa yëg ni day ñàkk élection yi ndaxte mi ngi attaqué frontalement Diomaye di tuutal ministre de l'intérieur ak ministre de la justice menacé Barthélémy Dias ni dootu fi amalati campagne lii yëpp la yéenekaay bi def ab taxaw seetlu ni ah ba Bassirou Diomaye Diakhar Faye gardien de la constitution chef suprême des armées dina si jël ay responsabilité waaye itam ndax Bassirou Diomaye a